di xalifa borom daaru muxti karawaanu Mayumba ñëwoon ànd si ak sëñ Sidi Mbacke mu sëñ Modou Awa Balla mi ngeen xam nekkoon ak ñun foofee ca Gabon ñëw teew si fii ci sëñ bi ànd ak sëñ Cheikhouna Bousso sëñ Alaaji Lo ak Cheikh Mbeng Baye Fallou Mayumba Gabon ñu ñëw ci sëñ bi ngir di sàkku si rek ay kàddu yu soññe yuy jëm ci mbokki taalibe yëpp bi ñu ñëweet gaaral nañ sëñ bi li nga xam ne mooy tànk yi tax ñu jóg muy ab soññe bu jëm ci liggéey ba ñuy def ci topp jaar-jaari sëñ Touba ci Gabon ngir barab ya yëpp ñu màndargaa fa loo xam ne bu ëllëgee ku fa ñëwati di nga xam ne fii la sëñ bi doon liggéeyee waaye di nga fa gis màndargay lislaam ci ay jàkka ay daara ak yoo xam ne ña ngi ko fa waajal bëgg ko faa def te loolee euh, ñu am cay feex yu baree bari ndax la ca sëñ Fall bu sa doon mébét ba taxoon mu def ko ba wutal ko ay kayit loolee njiitu réew ma waa réew ma fekk nañ ñu ci ba am nañu ay suuf yu ñuy jox ginnaaw buñ bawoo ci sëñ Muntaxa mu ni nan ko yaatal ci kilifa yépp nag loolu moo sabab ñu ñëw fii tey ngir di sàkku ay kàddu yu bawoo ci sëñ bi jëm ci taalibe yépp gaaral nañ ko nagit njaboot ga fa nekk muy sëñ euh, Abdourahman ma nga xam ni moom moo fa teew te it nam fa teewee doonu rafet ci yoon wi jaamu yàlla ak njub ak teew aw làmmiñam dong dong ba mu fa wàccee fekk si fa nijaayam juñ naan sëñ Murtada Ndaw ba nii nii génnul loole toogaay bu rafet ba mu fa nekkee nag biñ ñëwee gaaral nañ ko sëñ bi di sàkku ci moom ay kàddu ñaan yu jëm ca liggéey booba ak it soññe rek buy tax taalibe yi gën a feddali seen laxasaay kon xam naa ñu jox kàddu gi rek bu ko defee ke mi nga xam ni moom moo yore kàdduk euh, kër sëñ kër sëñ euh, moo nekk nii toog sëñ bi joxe ndigal ngir mu jot jotli ak kàddu ci tuuram ak ak rakkam sëñ sëñ moo daaw a akasa sëñ moo daaw balla mu toog fi wetam kon xam na ñu ñu jël kàddu sëñ bi rek soññee yi jëm ci njaboot gi yëpp billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum mbokk yi sëriñ Cheikhouna ak sëriñ Alaaji ak sëriñ Cheikh Mbeng euh, sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ mi ngi leen di nuyu di nuyut sëriñ Siidi mi ngeen àndal moom sëriñ daaw Balla te mu bokkoon ak yéen nekk foofu di nuyu it sëriñ Abdourahman mi nga xam ne te doomam la te nekk ci béréb ba foofa nekk fa ak yéen sëriñ bi di rafetlu jataay bi di rafetlu it li ngeen ñëw ci moom ngir waxtaan ci loolu ngeen bëgg a taxawal te bëgg koo taxawal Serigne Touba ci bitim réew rawatina foofu ci Gabon ak gox yi nekk ci wetam yépp Serigne bi di ko rafetlu lool di waxit ne e, seenu mbaax ak seenu yaatu ak seenu ubbeeku moo waral lii ngeen def waaye nee na bu ngeen waaxu woon ba ca ni ngeen ko defee ba ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa wax ko ko mu wut aw kartam soññee ci nee na daanaka matale na mboolem jullit ñëpp kenn ku ci nekk fa ngay tënku mooy ki fi nekkal Serigne Touba ca loolu rek ngay tënku kon dafa mel ni sëñ mun Muntaxa moom bu ci joxe woon ndigal bu ngeen yemoon foofa it mel na ni agsi ngeen Daarul mooti waaye nag seenu mbaax ak seenu yaatal moo tax ngeen agsi fii sëriñ bi di ko rafetlu rafetlu gi li tax mu di ko rafetlu nee na liggéey boobu dee liggéey boo xamante ne bu kilifa yëpp bëggoon la bu kilifa yëpp xemeemoon la ni ko way juru sëriñ naa mi defee noonu la ko jullit ñëpp bëggee woon mooy fexe ba tënk sëriñ bi ci li mu nekkoon ak fa mu nekkoon ndax sëriñ bi bu ñu ko xamee xam fa mu nekkoon xam lam fa nekke woon njariñ rek lay doon ci ñun ndax noonu nga ko waxee day lu am solo loo xamante ne fii ngeen ñëw tey borom béréb bii di Cheikh Ibra Faty moom la defaloon waxante boobee keroog bi mu jógee ci géej gi jóge gamoo ñibbisi ci tukki bi ak si yónni si sëñ yónni sëñ Isaa ne ko demal wool ma Ceerno mu ñëw fii Daaru Muti ñëw woosi ko borom daaru dem fekki ko Ndar mu fekk ko Mbàkke Kajoor woolu ko mu dem fekki ko Ndar ba mu ko fekkee Ndar nee nañ waxante boobee loolu ci la bokk ndax nee nañ bi mu agsee sëriñ bi ñëw ñoom ñaar tafoonte nañ ab diir bu yàgg boo xam ne nee nañ kenn ci ñoom waxut nee nañ sëriñ bi waxut borom daaru waxut mbokk ya fa nekkoon nee nañ léeg-léeg ñu gis rek ay kanam yu woyof yoo xam ne day ànd ak mbégte lool waaye léeg-léeg ñu gis kanam yu ñagas yoo xam ne dangay xam ci seen kanam ne ñii de toll nañ ci béréb boo xam ne xëy na béréb bu metti la kenn ku ci nekk wax la nga defe woon loo xam la nga yore woon sëriñ bi wax ko lam defewoon woon ca Gabon ak lam yore woon ba wax ko ne ko Cernu dey su ngeen doon wër fépp foo xam ne jaar naa fa wala ma dem fa du ngeen gis mukk fu ma gàccale sama benn taalu bi du ngeen gis fu ma gàccale sama menn mbokk loolee di wax ju diis joo xam ne ba mu ko waxee Cheikh Ibrahima Faty bokk na ca nee nañ ca la mu ko tontu ne ko man it dey la nga fi bàyyi woon lépp defar naa ko ba manis na koo jariñoo lenn lu ci doon benn def naa ko muy ñaar lu ci doon ñett def naa ko muy ñeent te boo ko toppee it day doo gis benn njaboot gu féewaloo doo gis kenn ku taqalikoo doo gis kenn ku tasaaroo doo gis lenn lu lëj lépp lijjantiku na muy ñaari jàmbaar yoo xamante ne seen liggéey bu kawe boobee ñu liggéeyoon Serigne Touba liggéey bu yéeme la boo xamante ne kon nag kenn ku taas yooyee nga xamante ne fa lañ jaaroon bañ koy liggéey Serigne bi ak coono boobee mu doon daj ca àll boobee ba ñëw nettalil ko boppam loolee kenn ku ci nekk war na koo xañtu kenn ku ci nekk war na koo dox kon mu mel ni seen mbir mi mbirum taalu bi yëpp mburi mbirum murit yëpp mm. du mbirum sëriñ fàllu rek mm. sëriñ fàllu daa def la mu war a def mm. nekkoon fa di fa dund xeñtu ko bind ko ba ne yoon waa ngi nii bàyyi fi ay njabootam ay njabootam it di góorgóorlu ca loola ànd koog taalibe yi waaye dañ koy ànd ak mboolem julit yëpp kon sëriñ bi nee na mi ngi ci soññi mboolem njabootu Cheikh Ibra Faty gépp képp kuy dégg kàddoom wala ngay dégg wala ngay diglu ndigalam wala ngay diglu bu waxee nga def bu teree nga bàyyi nee na mi ngi lay soññi ci mbir mi nga gëstu ca ba xam ko te foo man di nekkit nga def ko ni sa mbirum bopp ndax ñoom kat nee na seen mbir ak mbirum sëñ tubaa da doon benn ndax koo xamante ne sëriñ tubaa ci boppam moo waxal boppam ne ibrahima du diyal ay man cernu mooy sama mbaggum nday joor mbaggum nday joor nag la muy jariñ nit kenn ku ci nekk xam na ko ndax doomu aadama boo demee ci médecin yi sax dañuy wax ne doomu aadama lu ne mën nga koo dindi ba mu des wàllu ndi wàllu ndijoor boo xasee ba dindi ci nit rek nit ki duutu fi nekk kon loolu wane na ne am na lu fi sëriñ bi doon jàngale ndax dañuy wax ne ñaari ñaari ñaari ñaari mbind sëriñ bi dafa jar dafa dafa jar di bàyyi xel muy si diggante sëñ Touba ak borom daaru dañuy benn goo xamante ne lu jar a bàyyi xel la ndax dafa am ñaari leetar yoo xamante ne soo déggul dëgg-dëgg wala jàngoo arab dëgg-dëgg ngir nga tekki ko dana jawe mooy leetar benn lettre boo xamante ne da ci wax ne ibrahima lësi lam yu xaalif ni laa fi siqarihi wala fi kibari mosuma tàqalikoog moom ci ndawam ak ci magam ak ibrahima lësi lam yu faarix nii laa fi siqarihi wala fi kibari mosuma tàqa mosuma mosuma wuuteeg moom ba mosuma tàqalikoog moom xam nga wuute na ñaari nit mën nañuy dund lu bari sax te xëy na dana jafe lool waaye tàqalikoo googu boo ko indi woon ci arabisan yi ne leen tekkil leen ma ko dañ naan duñ ko mën a tekki ndax sëriñ bi nekk na Gabon ay at mm. mooy Gabon ji ñu koy defal mm. nekk fi Jolof mm. nekk fi nekk fi faneen foo xam ne nekku fa ak borom daaru kon lu tax mu ne mësuñoo taxalikoo li muy wane mooy ba mu tante leetaram ba ca des rek la wane ne moom moo leen tekkil leetar bi tax ñu mën koo xam ne mooy ba mu ne Ibrahima addu diyal ay man mooy sama mbagum nday joor ndax mbagum nday joor du tàqalikoog nit kon ba mu ne mooy sama mbagum nday joor rek lañ door a mën a tekki wax jooje waaye bu dul woon ak ko mën a tekki kon dañuy ñaari jëmm di yëpp ngeen fi sëriñ bii nag sëriñ bi moom itam lii ngeen def di lu ko neex muy sëriñ Bassirou Anta Niang moom ku ko xam xam ne xam-xam jàng jàngale moo doon liggéeyam ndax fii ci dëkk bi ñu nekk ci bokk na ci ñi fi njëkk a sos école nga xamante ne ñi fi njëkk a sos ay école programme moom boobu ba sax ba léegi daanaka état bu ci bari programme yooyu lañ yor di ko jàngale nga xam ne mën guñ ko weesu ba léegi jàngale ko ay at sos fi école yar fi ay imam yar fi ay diplomatie yar fi lu ne kon kooku jàngale rek ñor na ko ñaareel ba ca desit mooy lim xam mooy jumaa ji kenn jiite ci jumaa ji lu mat ñaar fukki at ak nangam kon loola moom lii ngeen di def tey mooy wàllam mooy gëstu sëriñ bi bañ na ko ba bind ci borom daaru ak sëñ Tuubaa kon loolu wane na ne lii ngeen di def lu ko ñor la ndax nit ki booy bind ci moom da nga ci gëstu xam ko ba noppi door cee bind te moom gëstu na ci bind ci ba noppi xam ci laaj ci mag ñi laaj ci doomi sëñ Tuubaa yi laaj ñi fekkee woon sëriñ Tuubaa kon bind moomee lu ko gën a wér amut kon daal bi nee seen kàddu yi kàddu yi mbégte rek la kàddu kàddu yoo xamante ne yu dal la ndax wóor na ko ne day la sëñ Tuubaa waxoon ne sama sama sama sama démb ju nekk moo may daqal sa ba tey loola ñëw na tey ndax bu demee tey jii ba loolee mu doon daj ci seen réew moome ak coono yam fa jànkoonteeloon ak lam fa daj ak na mu méttee ñu dem ba tey fu mu taxawoon ñu bëgg ko faa defal jàkka wala defal ko fa kër goo xam ne ay jullite fay dal di fa jaamu yàlla loolu wane na ne suñu borom fay na ko fay goo xam ne fay gu kawe njortu la kon mi ngi leen ci ñaanal yàlla jàppale leen ci sàmm leen ci nee na it na seen xel dal moo yéen a koy àndandoo moo yéen a koy àndandoo ci tàmbali bi moo yéen a koy àndandoo ba fu ngeen ci àgg luñ ci way def rek bu soob yàlla na ko yëg dana ci ànd ak yéen te dana leen ci taxaw dana soññi mbooleem njaboot gi yëpp ku ci bokk boo déggee waxam ji na nga ci taxaw te soññee ci mi ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ñëw nag ci ab jataay bu am solo ci jéego yi nga xam ne moom la ñuy dox mu indi ñu tey jii fii ci keppaarug daal Musti ci jataayub sëñ Seex Astu Fay Mbàkke moom sëñ Modou Habib moom maam Thierno borom daal Musti ñu ànd feek mbégte bu baax ñëwee nañ fi nag euh, ci jéego yu bari ñëwee nañ fi ngir sàkku si ñaan ñëw ñëwee nañ fi ngir sàkku si ab soññe bu jëm ci liggéey bu yaatu bi nga xam ni euh, duñu fàtte duñu fàtte benn jamono liggéey bu màgg bi nga xam ni sëñ Touba liggéey na ko ca Gabon mu mu am juróom-ñaari at juróom-ñaari weer ci Gabon dellu si ba mu njëkkee jataayoo ak maam Thierno ca Ndar mu wax ko ni ko Birahim tukki baax na Birahim kenn mënatuma nax ku yorati sas kook duy kook sab cox ba mu mëcc nga feccilee ko sa baraay dinaa tonni sa baraay delloo sab jox ni ko biraayim dootuma jëlati mukk sama lu ma fonk di ko def ci jëm te defaruma jëmm ji njëkk ni ko biraayam dem naa ba ñëw waaye defuma fi dara lu leen di gàccaal ba ñu ma ko topp samay jéego waaye loo sori sori ndam rek ngay gis doo gis mukk lu lay lu lay gàccaal maam Thierno wax ak moom ca batale mu ko batale woon ak jom-jom ca def ak nam ko teel njabootam ba mu delsi te xat damut loolu kon tey bu ñëwee toog euh, jataay bi loolu rek mooy li ñu njëkk a yëkk ba yoon wi yëpp demee ba jaaxle tubaab bi bindub lettre yónnee si ko ci juróomi ati maayom bay sëñ tubaa ni sëñ bi kat des na ci géej gi ñu yor lettre boobee maam Thierno ñu koy yor di dugg ak génn a ah, ca booba jamono day soxna Faati Isa moo leen wax ni leen loolu jarul jaaxle sama genne ja woon na ma day dem dellu si bis bu ma génnee àddina moo may nangu ci bàmmeel te demaguma maa ngi nii kon loola dale leen ko seenum xel waaye ba sëñ ba ñibbisee ba woote ko ceen jolof day kookee xam na ni ah wax dëgg yàlla ah, delloo si woon na nit ña waaye la mu leen delloo seet firnde ja teew na ci seen kanam ku dem ceen jolof te loolu dañ ci teg sa bët moom mii nag di sëñ Cheikh Assou Faye ah, sëñ Modou Habib meññi ko muy ab xalifaam a ah, wax dëgg yàlla ci pas-pas ak dogu yàlla dogal na woote biñ mujj woote Gabon ci waajtaayu màggalu Touba mu ñëw fa moom mii délégation ba fa nekk mu magal leen teew fa teew Daaru Muxti gépp ak njabootu sëñ gépp mu magal leen ñëw foofe jataay boobe nga xam ne amoon na ko ak sëñ Fall Bousso sëñ Fall Bousso gaaraloon na ko ci pas-pas yi ak yéene yi nga xam ne moom la am tey muy muy def bisub soxna jaare ca yomba muy def fa ay sooroor yoo xam ne ku séenati dëkk ba ñeenti bant yañ ko doon simple di ko sànni di nga fa gis sooroor yu ko yu wettali ñeenti bant yooyu te dootu fa jóg ak daara jànguwaay loolee sëñ Fall waxoon na ko ñëpp di teew waaye tey jii nag firnde yooyu am na nii ko sëñ naa waxee njiitu réew ma nangu na ko ñëpp takku nañ ngir nangu fas ca yéene ànd ba loole ñu jëmmal ko ci tukkee mboobee ba ndam yooyu sëñ waa doon junj maam Cerno ni ko ku dem doo gis ma ku lay gàccaal bu fay soorooy taxawee te dootu fa jóg loolu dina doon ay firnde yoo xam luñ mën a luñ mën a teg bët la Mbàkke kon daal ñëw nañ fii foofee nag ca Gabon ña nga fa nekk ak sëñ Abdourahmane Mbàkke moom sëñ Abdourahmane moom maam Cerno ci daaru Marnaan gi mu nekk faak ñun doon ku am pas doon ku nangoo jaamu yàlla te jub te teyit néew na nit di dégg kàddoom sax mu jóg ci kaw muy muy muy njaboot bokk fii kon wax dëgg yàlla bun fi ñëwee war nañ ko fay wax njabootuk borom daalu ko fa nekkit takku ànd ak pas-pas di liggéey ñu bëgg rek kaddu yu soññ yoo xam dina bawoo ci sëñ bi jëm ci Gabon ak waa Gabon yëpp ngir ñu mën a bis bi ñuy waajal muy le 11 juillet le 14 ba le 21 juillet bii ñu jëm nga xam ne mooy waajtaayu karawaanu Mayumba karawaan bi de mooy topp jaar-jaar yooyu sëñ bi waxoon ni maam Thierno ne ku topp samay jaar-jaar waaye karawaan bi li leen tax a jóg mooy sampal sëñ Touba ay soroor ca Mayumba. jërëjëf maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm yéen ñi nga xam ne da ngeen indi lii te waroon ko dox waroon ko lijjanti ba indi ko sunu bopp ngeen indil nu ko ndax noonu amu lu dul sëriñ Touba hmm. dañuy tagg Omar. naa sidna Omar nii la mel nii la mel naa la mel Abubakar ne tànqal ngeen nu Omar Omar Mohamed loolu laa leen wax dama leen ne Thierno nu mu mën di mel sëñ Touba du kenn sëriñ Touba rek ah Thierno sëriñ Touba ab taalibe la def boppam lu mu liggéey jox ko di ko laaj digal lu mu ko digal mu def ko lu mu ko ne bàyyi ko mu bàyyi ko bi sëriñ bi demee. bari nañu wuti ay dëkk wuti ay tool wuti ay kër waaye daf ne man wutuma tool wutuma dëkk wutuma kër ndax awma ci ndigal téye njabootu sëñ Tuubaa waaye ci deng nag ci téye ko wax nañ ko ba tàyyi ne ko tasaareel nit ñi ñu dem ndax ñax gu wow mi ngi bëgg a lakk gu wax nañ ko ba tàyyi muy leen ka ma waxaloon day la ma waxoon dara du ko dindi <coughs> ndax du waxee bànneex du wax ngir lu neex nit mm-hmm. waaw te lu mu wax lu ne dees na ko gis dana ko jëfe te nee na moom téyel njaboot gi maa ngi dem liggéey te ñëw yóbbu gi ñu ko yóbbu woon moo tax mu ne nañ ma santale sa boroom ci bis bii ndax moom bisum mbégte la ko def nit ñi nag bisum njàqare lañ ko defoon ak bisum jaaxle waaye moom dafa bég ñaanoon na boroom dem liggéey ba am li mu am loola nag moo ci nekk kon li nga xam ne ñu ngi koy wax nun ñi ñëpp waroon na na mën a dem foofu ku mën a demit na nga ca dem mm-hmm. ñu ngi koy sant taalibe yi yëpp rawatina nag taalibe yi bu Daaru Muxti yi ñoom ñëpp nañ maas ci dem ca loo dégg ci Sëriñ Tuubaa jógal def ko waaye loo dégg na saxal ko mm-hmm. danga dem ba dégg loo lay jëriñ nga na saxal ko te bu keroog a yaayal ko te Ceerno moom Sëriñ Tuubaa rek la defoon muy léppam mm-hmm. na nga a def dara na a am dara nanguwut a xam dara sëriñ bi rek keroog bi sëriñ bi demee it te gouverneur ñëw dafa wax ne laajuma kenn Ibra Faati rek laa laaj hmm. kuy wuutaatu sëriñ Touba fi mu nekk sëñ Matar Samba nee na bi Thierno jógee taxaw dañ ne woon ak ndaama la waaye keroog du ndaama da ko ne Modou Moustapha mii mooy wuutaatam sëñ Modou Moustapha ne ko ah ma defee da ngay nekk fa sëñ Touba nekkoon nu nekk fa nga nekkoon mu ne ko déedéet sëriñ Touba bu nekkee ci àdduna may wuutaatam hmm. waaye bu fi jógee bàyyi taw bu tal na yow yaay doon wuutaat bi man nag maa ngi dem Darou Mouhty dootuma ne kenn asalaamaaleykum aleykum salaam rek laay wax. ci loolu la nekk doonu taalibe doom ju ma mus a mus a dañoo laaj sëñ bi aw turam kon nag ñu ngi sant taalibe yi yëpp ñu nekk Gabon ñu nekk Côte d'Ivoire ñu nekk Cameroun fu fi ab taalibe nekk te man ko na nga dem teewe ji ndaje mii ku nekk ci Sénégal it te man ko na nga teey teele ji ndaje mi ndax ñoom kat bañ ko yóbbu euh, foofu Gabon dañoo bëggoon kenn du gis fu ñu koy denc dañoo bëggoon kenn du gis fu ñu koy siyaaree yàlla gantu loola nag ba lii far ci dikk. Mm-hmm. ba chef d'état yaag ministre yaag ñëpp d'accord ci mën ko defal lii. Mm-hmm. kon nag na ngeen xam ne ñun ñëpp war na noo mën a waaj te dem te seeti ko. Mm-hmm. ñu ngi wax sëñ sëñ Tuxaam sëñ Muntaxa mi fi nekk it ñoo koy santa di ko gërëm. ci taalibe gu réy gi ndax ak taalibe rek la bëgg. waaw fonk na sariya lool. waaye tànk moom ci taalibe rek la ko teg. waaw lii ko sa borom digal nag du ko du ko fàtte du ko saggane waaye mbiram yëpp moom ci taalibe rek la ko teg te te te taalibe gi mhm. moo yor lépp nit ki boo ko bëggee def aw lay ëllëg mhm. doo sëndam lu daraam nit ki boo ko bëggee def aw lay ëllëg mhm. lu ñu yëngu ci moom danga ciy yëngu nit ki boo ko bëggee def aw lay ëllëg lu ñu laaj danga nga cay joxe waaye sëriñ bi laa yaakaar te bu ñu wootee doo wuyu bu ñu laajee doo joxe bu ñu dee dem doo dem dangay nax sa bopp rek te yàlla du nax kenn nan jàpp taalibe gi te jàpp ci sëriñ bi am nan lu kenn amul dañ ko war a téyeen ko kenn téyewul yéen waa Gabon nag ak Cameroun ak Côte d'Ivoire ak ñi jege foofu ñëpp yéen ñëpp ku di taalibe te yàlla jox la wërsëg woo mën a demee na nga dem teewe ji ko mm. di sant sëriñ Fallou Bousso mii sa sëñ Fallou lu ñuy jëkk a sant ah, ndax sëñ Fallou ba mu fa nekkee sëriñ Touba rek la fa nekkal mm. nekkalu fa boppam nekk fa ay bokkam sëriñ Touba rek la fa nekkal taalibe yëpp la fa nekkal di liggéeyal sëriñ bi di déglu lu baax mm. lu ñuy santaat mu mën ca lu ñuy joxe mu joxe doonub taalibe bu mat sëkk waaw fab darajaam teg fële waaw fab xam-xam ba teg fële fab juddu ba teg fële fab sëñ Tuubaa nag teg ci kanam kon nag kooka moo xalaatoon lii lii su ngeen ko bàyyi woon itam ba ñu wax ko sëñ Muntaxa mën na faa tabax juma waaye farlu négu ko négul sëñ Saliou négul Seex Mati lay négul kenn da ko santaane di ko dox ba mu agsi fii ci moom kon nag ñoom itam moom itam ñu ngi koy sant di ñaan yàlla yokk ay leeram te taas nu ci barkeem te yàlla dimbali ko mm. eh, àddina amu ci woon lu ko naqari àllaaxira yàlla bu mu ko fa am ñii mu fi bàyyi it yàlla leen yàlla sàmm ba fi mu jaaroon mm. ñu jaar fi ba àggale lim liggéeyam bépp ñu ngi leen di sant nag yéen ñëpp te di leen gërëm te ñaan nag ci barkeb sëñ Touba mm. ak ci barkeb sëñ Bira Faati mii di taalibeem lii ngeen sumb yàlla na ngeen ko àggaleeg jàmm te fekke ko te tal ko te mu àgg ak jàmm ba ngeen def yeneen ak yeneen te ngeen fonk nag taalibe gi fonk leen taalibe gi bu leen ko sàggane ku koy sàggane demal woon ko gannaaw ku ciy wax demal woon ko gannaaw Thierno daan wax ne foo déggee kuy critiquer Cheikh Ibra Fall boo ko mënta fonk jógal dem te bàyyi ko waaw waaw jógal dem te bàyyi ko waaw lii la wax waaw nee na koo dégg mu naa Cheikh Ibrahima nangam ak nangam mm. nii soo ko mënta fekk jógal dem yow wuti boobu jataay eh. ndax ci jataay te texee yi la bokk wasalaam وسالك نار الخل لي بر ما ينبغي